ñu ngi sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu wa sallam beneen yoon di nuyu mboole mbokk julli di fi teew yépp di ci jiital mboole magi jàkk bi nga xam ne ñoo fi tuutu mbooleem kilifa diine lislaam di leen ndokkeel ci alayhi wa sallam bii ñu bàyyeekoo nga xam ne ñu ci doon màggal juddug yenent bi sallallahu alayhi wa ci mbooleem gox yi asamaan suuf di leen dokkeel di ñaan yàlla nañu fi fekk at yu bëri ànd ak man ak tal yàlla nañu yàlla nangul ñun yàpp ak suñ ko mën màggalee waaye ak ci xaal buñ ko mën a màggalee ñoo ngi sant yàlla mi nga xam ne mu ngi wax yàllaa ngi waxaat ci alquran ne ah yahuud yi ak nasaraan yi na ngeen xam ne ne su ngeen dimbalewul yonent bi na ngeen xam ne yàlla moom dimbale na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon lan moo ñu war ñun jullit ñi nañ jéem a góorgóorlu xam ne dimbale yonent bi mooy dimbale suñu topp yonent bi fonk yonent bi mooy fonk suñu bopp te fonk suñu bopp mooy fonk yàlla subhanahu wa taala ñoo ngi ñaanal ay saabaam yu tedd yi ñi nga xam ne tàppu nañ yonent bi àndoog moom dimbale ko ba diine sax ba diine dëgër egsi fi nga xam ne tey fi diine yegsi ak képp ku leen topp ci mbir mooma ba keroog bisa fay ba wabaat <coughs> ah, li nga xam ne mbokk yi ñu ngi koy laaj ci lan mooy gis-gis ci teew xew bi nga xam ne tey xew na ci jamono dañ leen di wax rek ne xew xew bi dugul gan xanaa ñëw aji ñëw ñëwati na rek ak ñëwi na loolu la ñu a wax waaye dugul gan lislaam di am lu mel nii waaye nag bam dalee xam ba léegi du lislaam lu may doole du yokk lislaam lu may taar parce que jamono bu amee rek xam-xam dana génn yoo xam ne danañ gën a xamle kan mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam danañ gën xamle lan mooy diine lislaam bi xam ne mooy diine ñu ko yàlla jox te waxtu buñ ko gënee xam rek dafay gën firtal jullit yi ñu gën jàppaat seen diine bu baax فقد قال شيخ الاسلام ابي ابراهيم رضي الله عنه فاني وقفت على كتاب مفاجئ كتبه رئيس أساقفة دكار لفيفا ونصرته ونصرته مجلة فرنسا المسيحية في سحر ديسمبر 1959 بمناسبة عيد الميلاد المحترم وهو كتاب يمس كرامة الإسلام فقد قال كاتبه من غير استحياء فتقليد الأعمى وتبعية الحمقى واستعباد الضعفاء هي تقاليد الإسلام ñu andi rek benn dëkk boo xam ne Mawlana Cheikh Islam Aji Ibrahim Niass radiyallahu anhu na ko ci wax joo xam ne ju xëy rek daanu ci réew mi la woon loola ñu ngi bàyyi ko bindkat boo xam ne eh, asa xiifati Dakar dégg nga soo demee ci eh, seen jàngu nga xam ne ci la ñuy dajee kuñ doon wax la fiifar moo waxoon wax ji ànd ak nag majala bi nga xam ne mooy majala faransa dimbale woon ko lool doole lañ ko lool loola mi nga amoon ci weeru décembre ci 1959 mu tolloo woon nag indul milaadil muhtaram nga xam ne mu ngi tombé woon nag Euh, feetu indépendance mu nekk wax joo xam ne wax ja dafa laaloon teraangay lislaam nga xam ne lislaam yàgg nañ koo sonn nga xam ne lii ñu wax lu tey euh, bindkat ba wax wax jii ñuy wax si ci loo xam ne amul ci sax benn kersa amul ci dara lu muy tiit mu ne man ak maanaam ràngal gumba ak topp ab dof ak jaamu sàkkoo jaamuloo ku néew doole su fekkee ne da ngeen a a xam taxawaayu lislaam mu ne lii mooy taxawaayu lislaam dégg koo xam ne gumba la xamut gisul nga yëkkati ko wal batiku koo xam ne ab dof la di sàkkoo jaamu lool koo xam ne ak néew dooleen rek moo tax nga di ko nag mu ne ko bugg a xam taxawaayu lislaam lii mooy taxawaayu lislaam wa qaala radiyallahu alayhim ca nag Cheikh Ibrahim moom it jëlee xalimaam bind li leen tontu ne fa xubbaka shay'a xijaabun an masaawihi wa buxdaka shay'a xijaabun an xasanaatihi wa li haada wasafa al islaama bi wasfi diinihi fa hum alladina qaalu addiinu fawqa al aqli xubban minhum lil lil qiyaadi naasi lahum wala yaqaf xaqiqati diinihim bal taqlidul ama wa taqiyatul xamta mu ne leen bëgg koo bëgg dara dana la yiir ay ñaaw-ñaaw yu nekk ca moom ay sikki yu nekk ca dara jooja bëgg ga dana dox dana nekk kiiraay ba doo gis sikki ya nekk ca loola nga xam ne moom nga bëgg waaye bañ koo bañ dara it dana nekk kiiraay ba tax taar ba nekk ca dara jooja ngëneel la nekk ca dara jooja doo ko mën a gis mu ne nag lii moo tax ñuy mellal lislaam ci melakaanu dégg ñoom seen diine la nekk seen jikko lañ jël di ko jikkolee lislaam waaye lislaam fekk sa reer ak loolu ñoom wax nañ ne diine moo dëkk moo ëpp tel dafa tiim tel doonte wax nañ dëgg taxut ñu jublu ca li nga xam ne yow jullit bi loolu nga ciy déggee ndax xam nga ne diine tiim na tel ndax tel mën naa dox ci biir diine ba lot ba fa mën a yem mu yem fa te du tax diine mu jeexal fekk seen diine mooy diine ñoom ñoo ràngal diine joo xam ne dégg nga wax silmaxa moom la waaye bu ñuy wax topp ab dafa moom la waaye loolu moom diine lislaam soree na ak loolu كما نصب أبيات صغيرة يوم كتب أبو القسيسين مقالا بعنوان سنقال يأوي إلى مريم وابنها فقال رضي الله عنه يرد أيضا عليهم فسن قالوا يأوي تحت ذل محمد ويعبد ربا جل شأنا موحدا ومن سن شيئا غير هذا فسنه سقيم عنيد باطل لن يؤيدا رويدكم أهل الكنيسة لن تروا lay wax na sa jot loolu nga jot sa yaakaar boobu nga yaakaar feebar la sa yaakaar nga feebar na waaye sa yaakaar nga ragg na waaye sa yaakaar nga neen la te itam kenn du ko mos a dëgëral kon nag maa ngi leen di wax ni yéen ahlul kanisa dégg nga yaa yéen jàng bi maa ngi leen wax ne na ngeen def ndànk na ngeen def ndànk du ngeen gis diirab jamono ba àddina di tukki Sénégal di topp keneen ku ma yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon lii la ci Mawlana Cheikh Ibrahim te kenn la ci général yi nga xam ne ñu ngi nekkoon fii ci réew suñ nag kenn la ci général yi kon dañ lay dañ ciy déggee ne réew mi tabaarakallaahu ñu ngi fees ñu ngi feesoon del ak ay général tey général yooyu amul sikk ne jamono bu nekk demuñ lu may formé na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi ci seen i tànk ba tax na seen yoon bu mos a fay illaa yawmi diin kon li nga xam ne moom la ñuy dénk ñëpp di ko dénk suñu bopp nañ xam ne yàlla mooy suñu borom amuñ beneen borom bu dul yàlla. amul kenn ku demande sa ñëw yàlla moo la andi ci coobareem te bi la andee dafa wax ne maa xalaqtul jinna wal wa maa uriidu an yàlla moo ñu sakk wax ne binduma jinne yi ak nit ñi lu may nañ ma jaamu te jaamu boobu nag ñi war a jaamu yàlla nañ xam ne. kenn mënta jaamu koo xamul li ñu sonal mooy réere yàlla nañ góorgóorlu ñu xam yàlla suñu xamee yàlla rek dinañ mën a xam naka la ñuy jaamoo yàlla te dañu xam ne yàlla rek moom jaamu ko te it danañ mën a jaamu yàlla te dara lu mën a dox suñu diggante ak yàlla yàlla ne bu leen ittihoo wërsëg man maay ci leen di wërsëgal nañ xam ne lépp lu ñu a dabu nañ xam ne ci loxol yàlla la nekk yàlla moo ñu koy jox ñun nañ nekk ci li ñu yàlla digal te bañ cee tànn lenn te bañ cee ut lenn rafetal suñ pas-pas jullit jullit nag du ñàkk mukk natt jullit duñ mos a ñàkk nattu yàlla dana nattu jullit bi ci pas-pasam yàlla dana nattu jullit bi ci yaramam ci jëmmam yàlla dana nattu jullit bi ci wërsëgam yàlla dana xaala bu man di doon parce que yàlla moom moom ñépp moom moom lépp di soppandiku ci lépp lu man di doon ni ko neexee te it kenn du ko wax lu tax parce mooy borom jàng kon nañ gën a góorgóorlu delloo si bopp yàlla nangoo jaamu yàlla sellal jaamu gi te xam ne lañ doon bañ démb ba léegi ña ka doon bañ ne am na ñu fi nekk di ko jëmmal ba léegi it ba léegi di taxaw di di dénk mbokk jullit yi nañ xam ne amul ku may yàlla mooy suñ borom sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa moo di suñ yënant dégg nga kenn mënu koo ayibal képp ku koy ayibal faaqidu shay'i laa yu'tihi kenn du joxe loo amul kon kay jóg wala ñay jóg na dañuy ayibal Seydina Muhammad ñoom ñoo ayib ba seen ayib di tuuru ñu yaakaar ne tuuru googu mën naa yegg si ci yenant bi waaye yenant bi dara mënu koo ayibal dara mënu koo laal ci sikk dégg bu dee dañoo bëgg a siiw nag tax ñu ne laal yenant bi loola mën na leen a siiwal ndax ku xamutoon ñoo tudd nan mën nañoo xam après seen tur waaye du tax mu yokk leen daf leen di xalaat rek dégg daf leen di xalaat rek kon nag li nga xam ni moom la ñuy dégg suñu bopp du ko dégg jàpp nañ xam ne Seydina Muhammad mooy suñu yeneen ñu yàlla doy doy buñ roy kenn buñ déglu kenn ba keroog ñuy ñàkk suñu bakkan dégg jullit pas pasu yàlla daf koo war a jaral bakkanam dégg comme ni ko Seydina Aliou waxee dégg nga xatta ndox mu sedd moo xam ne boo ko naanul sax mën nga ñàkk sa bakkan mu ne yonent bi moo ko gënal sallallahu alayhi wa sallam kon nañ teg ñu itam suñu tànk foofu moo ko jëlee lii yàlla ñu yàlla dimbale ci loolu diine lislaam mooy suñu diine dégg nga guddeem dafa mel ni bëccëgam weex tàll leer nañu jullit na dégg diineem nañ ittewoo dégg suñ diine nañ ittewoo xam suñ diine buñ ko xamee nañ tegu ci woon te buñ ragal yeddaa ngay aji yedd lii mooy rolu jullit ñi fi jaar ñépp sonn dara sonn lu leen lu may ñu ne da ba lii yàlla ko yonente bëgg def lii lii rek mooy ñu sonaloon mag ñi fi jaaroon jaar ci tekk tekk yi jaar yépp dégg nga histoire andi na ko ku nekk xam na ko dégg nga war nañ leen ci loolu loolu la ñuy suñu bopp moom la ñuy dénk comme man di doon yàlla ñu yàlla boole dimbale yàlla ñu yàlla boole dimbale yàlla ñu yàlla boole dimbale sàmmal ñu suñu pas-pasu gëm yàlla parce que mooy li gën a rëy ci ñun feeg yàlla koy aar ragal ñu leneen waaye wax ñun suñu pas su gëm yàlla mu rëy ko rek see boo ñu tiit yàlla ñu yàlla sàmmal suñu pas-pasu gëm yàlla bu ko dara yàq bu ko bakkan yàq bu ko àddina yàq bu ko seytaane yàq bu ko dara yàq yàlla ñu yàlla téyal seen parce que su yàlla ñu nekk ay jullit xaqan te sellal suñu njullit yomb na yàlla yàlla ñu yàlla defal aaral suñu réew yàlla na yàlla aaral ñu mbooleem réew yi àddina bi yëpp ndax réew yi yépp bu leen yàlla aaree amul sikk ne foo aaral na la waaye fu fit na nekk rek ñaawal njort ne mu jëgoo kon nañ leen ñaan yàlla yàlla ñu yàlla musal ci fitna yàlla ñu yàlla musal ci fitna lépp lu fiy fitna yàlla ñu ko yàlla teggil ci zaahir baatin yàlla na yàlla defal ñu jàmm zaahir jàmm baatin yàlla na yàlla dundaloo ñu ci lislaam bu ma sëkk ci ngëm yàlla bu sell yàlla na bés bañ ñuy rey yàlla nañu rey ci ngëm yàlla yàlla nañu reyee ñun ñëpp ñu àndandoo ci baat laa ilaaha illallah muhammad rasulullah bés bu ñuy dekk yàlla ñu dekkil ci baat boobu ñu ànd ak gërëm yàlla sant ko loolu yomb na yàlla yàlla ñu ko yàlla defal mu am a mooy gis nañ ne organisation yi nga xam ne mën na ci àdduna si ba suñu réew am na ñoo xam ne mu ngi commencé jël benn vitesse bu doy waar mooy loolu ñu tuddee borom ñaari tur am lu ñu koy defaraat beneen bi ci des mooy li ñu tudd euh, accompagnement médicalisé te mooy boo xam ne bu ëmbee am na sañ-sañ dem ci docteur ñu jox koy garab mu avorté loolu nag en tant que nitu diine en tant que mu xaddam ci ndono na Cheikh Ibrahima Niass lan nga ñu ci mën a wax rawatina ndaw ñu xale bu ñu tamit jigéen ñi ndax lépp am na fi góor ànd ak organisation internationale bi nekk di défendre loolu loolu la nga ci ay minutes yu gàtt nga ñu ci mën a baax. alhamdulilah ñu ngi santaat yàlla bu baax. Euh, li ñuy wax loolu rek mooy. xanaa lépp lu jaxasoo bañ nañ doomi jullit yi ñu ngi daw jëm ci loola te fekk loola du noona nañ xam ne yar ba nga xam ne moom la wayjur ya waroon a jóg ci doom yi ca bam jotee moom lañ ba dégg yaakaar ne am na yar bu gën a jub yar yàlla jox na leen ko muy diine lislaam ñu war cee yar njaboot gi jàngal leen téereb yàlla mu jiitu ci ñoom defuñ loolu te lañuy def du dara lu may gàttanu poñetam àdduna te fekk na yàlla wax na bu yàgg ne kenn kuy dox ci kaw suuf wala lenn luy dox ci kaw suuf lu may sa wërsëg amee te dinaa la ñu yàkkamti wërsëg boobu di ko gàttanu lii rek moo tax ñu sàggane yaram diine lislaam sàggane téereb yàlla bi daw uti àddina àddina yi daw te seen yoon wala boog gën a yokk aw xelam ñu daw topp ci kooku ne àddina du daje ñëw moom te mooy liñ bëgg duñ ko mën a am mukk daa iman rek lañ te mooy àddina duñ ko def ba illaa yow bi suñ demoon xam ne mel na ne ña ngi a teg seen loxo sax duñ ko doon mooy àddina nga seen kanam ñu daw topp ci kon façon yi ngay gis yëpp soo ko seetee yépp ut àddina rek te du tax ñu jot àddina illaa yow mu diini te da dee du jaas féeg juddoo nga kullu nafsin zaa'iqatul mawt duñ ci guddal wax li ci suñ borom wax mooy suñ borom jàng nañu ko ku ko jóg pour bëgg ko défendre it yaa xam lan tax nga di ko défendre waaye man ko li ma xam daal mooy nañ góorgóorlu yar njaboot gi teg leen ci siraatal mustaqim dégg nga ba nga xam ne bu ëllëgee duñ am dara lu ñuy ragal ci njaboot gi ci suñ kanam ak suñ gënnal fa demee bi imam si imam Moustapha waa bu seen kilifa moo leen doon jot ci li kàddu yi tedd yi am solo yi yàlla yàlla barkeel xanaa ñu def dara lu jox ko kàddu defal pour mën koo am kon yéen ñu jóg sonnee li dégg nga joxe seen temps joxe seen lépp dégg nga ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di sant di leen ñaanal yàlla yàlla yàlla dëgëral seen taxawaay ñu bokk ah, di gërëm seeni kilifa itam yi nga xam ne ñoo leen yebal yàlla na yàlla dimbale leen feeg dañu di dimbale diine lislaam ñu bokk jàng faatiha salaatu ala nabi aoudu billahi min sheytaan irajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahman rahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata almustaqima sirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin amin allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatihi lima uxliqa walxaatimi lima sabaqa nasiri alxaq bilxaq